yam ci damay wax ba pare wane li tax ma wax lii lii moo ko waral kon dama jàpp ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy bind di wax dañoo war a yeewi askan bi ndax ñoom ña am ay information di wax am ay seeni support wala boog seeni façon jumtukaay yoo xam ni mën nañoo xam lu ne ñooñu nañu def ba xam lu ni mel war nañoo mën a def ba yeewi ci askan bi wane ay preuve yu leer naññ ni gaa yi wax ji lii la man dey bu doon man loolu laay def waaye nag xëy na du man kon nag ñi nga xamante nii loolu lañuy def man de loolu laa leen doon laayu biir ñu def loolu su ko defee buñ ko wanee askan bi ba askan bi gis ko xam ni ah lii la bu boobaa askan bi ci boppam ñoom ñooy juger li am ndax dëgg la walla du dëgg ndax lii la walla du loolu ndax yow mi am wax dëgg yàlla doole ak kàttan ba mën a xam lépp war ngaa mën a indi preuve yu leer nañ ba ñépp gis ko daal di kontaan xam ni lii la loolu nag képp koo xam ne bind nga walla loolu boo mënee def loolu itam baax na pour nga gindi askan wi boo ko mënul tamit ba mënoo ko xam ne mënoo ko tam garaawul nga xam ne mënoo ko waaye boo boo toogee fi nga toog bind li nga bind wax li nga wax dara waralu ko lu dul diw moo wax lii walla dama dégg ci diw wala diw de moo wax lee ah dama foog ak yaakaar naa wax dëgg yàlla nit waru ci basé wu kese ndax man tey su ma sañoon ñu wundil ma loo xamante nii nit ñi yépp dañ koy xool xam ne dëgg gi lii la bu boobaa ku nekk am nga sa jugement bopp nga ne lii kat noonu la ah kon lii laa war a def lii laa war a wax wala lii laa war a wax waaye bu loolu amul ah maandute nag daa war a am bu loolu amul maandute dafa war a am ñàkk bañ a tooñ dafa war a am ndax boo fekkee ni mën ngaa wax ci nit nga tëdd guddi yeew xam ne lii may wax nii wax dëgg yàlla awma ci lenn lu ma leer lu dul dama dégg benn waaye wax ko rek wala benn femme wax ko rek ma wax ko wala dañ ma ko wax loo ah man de du ma defee noonu waaye nag ku nekk ak ni ngay defee kon nag looloo tax may invité waat sama mbokku jeunes yi nga xamante nii ah dañoo xot joto jaar fu mel noonu ñu bàyyi xel ci loolu ndax nag dafa am ñett yoo xam ne dafa am man suma ma tooñee yàlla. sama diggante la ak yàlla su ma ko jéggaloo mën na maa jéggal waaye nit su tooñee moroomu doomu aadamaam moroomu nitam moroomu nitam kooku su ko su ko jéggalul ah yoonu suñ boroom nekku ci de te nit itam boo tooñee buur buur def li ko war ci yow kon nañuy moytu ñett yooyu di tooñ buur wala ñuy tooñ suñu bopp walla suñu moroom wala ñuy tooñ buur loolu bëggoon naa sànni ko ci te itam loolu jàpp naa ne mooy li nga xam ni ñi nga xam ne ñooy bind war nañoo mën a am yenn yu leer nàññi ci loolu pour mën a wax léegi nag li nga xamante ni tey moo war a gën a tax sax may wax ci lii mooy ñàkk information ak ñàkk xam gi waral nit ñi di ñëw di jaawale man ki ma doon ak personnage yi may yi may joué ñàkk am lu leer weesuwul man ma tudd Xaadim Seen ngay jaawale li nga xamante ni moom laay def di ko liggéey ci rôle yi nga xamante ni moom laay def parce que exemple euh, parce que li waral loolu mooy euh, maa ngi def benn rôle ci infidèle tudd Ousmane Thiam ma nekk ñeeño ci film bi ñi nga xamante ni ñu ngi wax nee nañu dama dem ci kër di ñaan nit ñu bañ ma ko may ndax man ñeeño laa walla lene wala géwél laa walla tëgg laa man Khadim Sène su ma nekkoon ñeeñoo damay fier lool santaat yàlla lool ci yàlla ñeeño bi ma def ma nekk ko su ma yàlla defoon géwél walla mu def ma tëgg damay damay fier ci loolu damay kontaan torop ci loolu ndax yàlla nag wax dëgg yàlla lu mu def ci jaamam loolu la te ñooñu noonu comme maanaam li ci mel ni tëgg walla walla géwél wala ñeeño bi ñuy wax nii ne dem naa man ñu dàq ma ngir loolu man su ma yàlla tegoon loolu dama koy sant ndax ñu gore ngi noonu xeet bu gore la géwél xeet bu gore la giir xeet bu gore la tëgg xeet bu gore la ñeeño xeet bu gore la ana lan mooy ñeeñoo ana lan mooy tëgg ana lan mooy géwél ana lan mooy genre xeet yooyu noonu ba ñu jël ko di ko boole ci sama ay wax wala di ko boole ci sama ay mbir man suma yàlla tegoon ñeeñoo wala mu teg ma géwél wala mu teg ma lu mu mënti doon dama ko koy sante waaye yàlla teguma loolu man géer bu set wicc la ma teg rax ci dolli def ma ma nekk séeréer ma fier lool nag bëgg séeréer yi lool fier lool ci séeréer gi ma doon nekk sëtu may sawali Jonn ku nekk xam na ko nekk itam sët ci ngol njoomaan nekk itam sët ci ki nga xamante nii moom mooy càcc koor uppe ñi ma lay wax nag soo leen bëggoon a xam dangay dem ba korosmangu njaan nga wàcc ne yóbbu leen ma mbus naax nguur mbaan buñ la yóbboo ba foofu dinañ la xamal ñan ñooy càccoor uppe ak ñan ñooy ngol njoomaan kon man géer bu set wi ci laa di gor piir ndax tund ba ma nekk mën nañoo sedd ne loolu laa boo gisee nag may xuus ci loolu dama bañ amal gaam dama bañ ñuy wax lii di wax lee te itam wax ji dafa mel dafa dem bay mel ni luy jaxase askan bi entre géwél wala géer wala tëgg wala ñeeñ wala leneen dama ni wax dëgg yàlla loolu amul loolu amul gaa yi musumaa dem ci benn kër ñu dàq ma ndaxte ñeeño laa musumaa dem ci benn kër ñu dàq ma ndax géwél laa mësuma dem ci benn kër ñu dàq ma ndax tëgg laa te billaahi bu ma nekkoon tëgg walla ma nekk ñeeño wala ma nekk lu mu mënti doon damay fier kontaan lool ci nekk ko waaye man séeréer laa te séeréer gënul pël pël gënul joolaa joolaa gënul tukkulóor tukkulóor gënul bambara bambara gënul séeréer ñun ñépp a gën ñun ñëpp a yem fa yàlla ndax nag ba may jàng ba tey di gëstu ba tey musuma digg fu yàlla di waxee ak jaamu yàllam yi te waxul ñaar yii yaa ayuha naas eh yéen nit ñi wala mu ne yaa ayuhal muslim man de ci lool laa xam loolu laa dégg ku tedd ki di wax ni inna akramakum hindallahi atqaakum ki gën ci nit ñi mooy ki gën a ragal yàlla man nag sujet yooyu moo gënoon a tax may wax parce que nag du ma nangu benn yoon du ma nangu benn yoon ñuy jaxase ay géere ki géwél walla ñuy jaxase ay tëgg walla leneen ak leneen wala ay séeréer ak i ci sama tur man duma ko may kenn damay génn ma wax ak jaam yi ñu xam lépp lu mu demee ndax yenn yi nag dama jàpp ne jaxase la te nag waruñoo toll ci jamono joo xam ne dañuy ruumandaat ak jaxase àdduna ndax réew mi ñu nekk nii soxla na ay jeunes yu ko génne ci fi mu ne soxla na ay jeunes yu ko génn fi mu ne kon man bu doon dafa am loolu noonu dama dem fenn ñu di ma dàq ndax loolu rusuma ko wax ndax dama fier ndax ñooñu noonu ndax tey ji géer géer ñooñu walla géwél yi walla tëgg yi walla lu mënti doon amul kenn kenn kenn koo xamante ni gën nga sa moroom amul yàlla bind ko fenn kon nag dama bëgg ñu delloo si xel yi ñu delloo ci xel yi te xam ni wax dëgg yàlla man xaadim seen awma benn awma benn problème awma benn problème ak benn famille awma benn problème aussi ak benn yaay awma benn problème ak benn baay awma benn problème ak kenn tooñuma kenn wala boo bu ma tooñee kenn maa ngi jéggulu ndax jéggulu ñàkkul man nag loolu laa gis te loolu laa jàpp damay bañ nag ñu waxal ma loo xam ne waxuma ko wala di bindal loo xam ne defuma ko yàgg na nag ci réew mi mun lii may def munoon naa ñàkk waaye dama koy def ngir sama mbokk yi di ko def ngir sama fans yi di ko def ngir sama am di jàmm yi di ko def ngir sama bokk Baay Faal yi ndax nag dama di murit di taalibe di sët ci Sëriñ Moodu Ablaay Faal Ndar kon jomb naa def lu bon jomb naa def lu ñaaw àdduna nag nit mën naa juum nit mën naa def lu ne waaye loolu diggante nit la ak boroomam moo tax man ci sama wàllu bopp musuma dem fenn ñu may def yooyu noonu kon loolu ku ko wax yow rekk la concerné yaat ñi nga ko waxal li ma ci wax nag lu simple la lii ma wax nii moo nekk ci man te moom laa gëm te bu dul woon yenn yiñ ci dugal du ma ci wax ndax nag dama am cër ci bépp doomu aadama duma nangu nag ñuy jël doomu aadama di ko néewal di ko jaarale ci man duma ko nangu wax dëgg yàlla duma ko nangu ndax nag man taalibe laa taalibe laa te gënuma kenn waaye kenn nit gënuma kon loolu lu ma waroon a leeral la ci askan bi ñu xam ko leneen li may tëjee di ko mujjee nag muy lu am solo loo xam ni defe naa ni c'est la première fois ma wax ci mbir mi te sa sera la dernière fois ndax nag ku nekk yaa moom sa bopp yaa am sa gëm-gëmu bopp li ma wax moom laa wax koo xam ni nag li ma wax gëm nga ko téyel nga dugal sa poos nga dox ak moom koo xam ne nag li ma la wax gëmoo ko du dëgg ci yow jël ko nga moxoñ ko nga ànd ci ak ñi nga xamante nii ñoom nga ci waxtaanal ngeen waxtaan ci def ci lépp lu ngeen xamante nii war ngeen koo def man daal loolu laa am ci li nga xamante ni moom laay wax gëm nag ku nekk am nga sa gëm-gëmu bopp su ma waxee bu la neexee gëmal bu la neexee bul gëm waaye man li may wax man mii la conserné lenn rek laay ñaan nag ci jeunes yi ñu gën a góorlu ci suñu réew mi ñu nekk fexe nu ñu jàppale suñu réew mii mu jëm ca kanam te bàyyi yàqante bi ak toogaay gi di wax lu ne ndax nag la ngay toog di wax ci nit mu jël temps bu bari boo ko defoon ca la ngay jaay wala nga def ko ca leneen yokkute rek nga ciy am kon gaa yi góor yàlla ak yaay fàll yi ak ku mënti doon dañoo war a xam ni Sénégal fi mu nekk ñun ñoo ko war a jël yëkkati ko mu nekk ci beneen level ndax réew moo fi gis tey mu développé wu ba toll foo xamante nii ñëpp a ngi fay dem di fa rooti réew mooma noona ndaw ñi génnewuñu seen loxo ca réew ma pour mu avancer kon ñun ndaw ñi nañu gën a takku ñu gën a liggéey ngir suñu réew jëm kanam yi nga xam ne nit ñaa ngi koy ruumandaat di jaxase nit ñi di wax nit ñi di wax lu nekk ci doomu aadama yi di dugg fii di génn fii man moom bañu ma ko ma waxal ku mu neex boo xëyee bindaatal lu la neex lu ku nekk wax lu ko neex waaye looy wax na la leer te looy wax buñ la laajee li ngay wax anamu danga naan mi ngi nii boo ko amul nga maandu te xam ne àdduna am na loo xamante nii bu la ko dara jaral man nag loolu laa am ci li nga xamante nii moom laa war a wax sama mbokk jeunes yi di ci wax képp koo xamante nii concerné na la yii nag man ci sama wàll bopp wax dëgg yàlla bugguma ko woon sax def waaye damaa am ndigalu def ko ba pare itam di ko def ngir samay soppe di ko def ngir samay am di jàmm di ko def ngir ñi ma bëgg te yàlla tax defuma ko ngir ñoo xamante ni defuma ko ngir dama ko ko def ngir ñi ma bëgg te tax loolu kese la du leneen waaye bañuma benn yoon nit wax ci man wasalaamualeykum wa rahmatullah bu fekkee nag man xaadim seen tooñ naa nit maa ngi ñaan mu jéggal ma nit ñi nag di ma tooñ jéggal naa ñépp jéggal naa jamihan wara lépp luy yi jéggal naa la bu dee def nga ma man jéggal naa la awma benn problème ci lenn awma kenn problème ci lenn bu dee man maa tooñ nit maa ngi jéggulu bu dee nit ñee ma tooñ it maa ngi leen di jéggulu te yàlla rekk tax fii laay yemale samay kàddu li ma wax nag moom laa war a wax moom laa am lu may wax te moom laa leen waroon a wax asalaamualeykum